nuy naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu ko nga guux bala ngay naan ma wax la li xew ci réew mi askanu sunu gaal ak li di ko wër observateur yëglekaay ni ma lépp lu waaye di def ji lu bon di ko xeeb xama musé ba mbaama kumba mum la mën a jural yëglekaay gi ne waa ji day tribunalum Ndakaaru Njaay Jal Joob ba la tax nu daal di koo tëj dara dara dara waralu ko lu dul sàcc ñetti junni quinze mille francs CFA yëglekaay gi ne moo tax ñu làkk ko jant bi de seetal ma lii jant bi démb ba mu fenkee ca ngoor ba ni muy sowe yëglekaay gi ne tàng jër la def ca askanu ngor waa ngor kay yëgle kaay gi nee ma coow lu metti la fa amoon tar na lool ba yéeme laas yëgle kaay ni ma coow laa ngay jéggi dayo lu nu a wax moo di daal tension a ngor rek les ko mën a dippee ay affrontement ay jàmmaarloo ci diggante askan waak takk der ya yëgle kaay gi ne blessé ci ñaari côté yëpp waaye la ca yéeme te doy waa moo di moor ba ca am ñaari nit ñàkk ca seen bakkan te mooy ñëw dëggal ni la leen jaxase du leen lu dul licence foncière six mille mètres carrés diggante la ñuy ñu nemmeeku ci diggante ñaari kaa yëpp yëgle kaay gi ne ma lu mu tuuti tuuti kenn nit ñàkk na ca bakkanam la fa nag kenn xamul nu mu toll moo xam ci takk der yi mbaa ci ñi nga xamante ne ñoo di askan wi itam réew mi day président Macky Sall ginnaaw bu mu wootee appel wax ni nag yi fi nag dal nag calme yëgle kaay gi ne fexe na sax janoo ak ñi nga xam ne ñoo dina notable village um Ngor gi la libération yëgle kaay daal di libéré ay kàddoom ci coow li la de daal ni affrontement entre population xelal ne meeku ca nga xam ne moo di ngor dégénéré kay situation ba weesu na ko def hôpitalum ngor jaaraama mu dañ koo mujj daal di la nga xam ne moo di champ de berek chasse li ni ma coow li yëmul foofu de xanaa xamoo ne am na yeneen i manifestation yoo xamante ni moom la ñu nemmeeku de ca fa nga xam ne moo di wakaam ak yoof ñëpp yëngal nañu de wane na seen bopp ci mer mi tey lii lébu yi de am na ci ñoo xamante ni sax recevoir nañ leen ca ba niki ki démb mooy notaabal yi mag laa wax yëglekaay gi ne gisees nanu leen coow li kay nee la jàngoro la ju metti ju doy waar ju aman ca hôpitalu Ngor jaarama coow li fa la nekkoon de xeex bu metti fata taraj waaye yëglekaay gi nee bu doon feebar la wàll nañ ko waa ak yoo le quotidien yëglekaay ko xamle ma ne ko nga ni mu ni journée chaude a Ngor la ñu nemmeeku tàng jër bay lakke alfajiri quotidien yëglekaay ne ma tàkk-tàkk ya ak la nga xam ne moo di xeere ak lacrymogène ya fi mu toll nii tembe xam nga lu nu mën a waxa ça de presse di jour ko xamle café balaa neex saf sap ak jar tàng jur yor yor yëgle kaay ne ma yor yoru ngoruk démb gi kay yóbbu na ñaari bakkan wópp tëlaw l'observateur yëgle kaay ne ma coowul suuf li ca ngor moom kay fi mu ni tembe ah xëy na xel dina ci dal ndax njiitum réew président Macky Sall recevoir na notable ya lu ci am ba des daal moo di ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan da yëgle kaay gi ne am na ay décision yu nu jël ca pale ba waaxu dem ca pale ba bokk ca ña koy xëccoo yëgle kaay gi ne Ousmane Sonko dee xam le ni kenn du ko tere bokk ca ña nga xamante ni ñooy xëccoo pale bi yëgle kaay ne moom Ousmane Sonko ne ak lu a ma la mu fësal xam ko moo di ba ay buti itam di jalaañoo kenn kenn mënu koo tere ni moo di élection yi nu jëm yëgle kaay gi ne moom Ousmane Sonko dene yàlla rek a tere bokk ci élection yi nu mu ni sëmbax li nga xam ne moo di élection yi lée bés bi la jour yëgle bi ne ma Sonko résister et trans Macky Sall ne kenn mënu koo tere doon candidat moom Ousmane Sonko te ne am na nañ moyens a laa la wax jël réew ma askanu sunu gi rendre ko ingouvernable yëgle kaay gi nee waa yeewi askan bi day woote nañu manifestation nii ki le 19 nu jëm ñoom fas yéene nañoo dajee ni ki le 19 mai ay kàddoom ne Sonko mooy symbole combat yeewi askan wi la di quotidien yëgle kaay nee waa yeewi askan wi de fas ñoo amal marche nationale ci réew mi bitim réew le 19 mai nu jëm contre nga xam ne moo di condamnation libération Ousmane Sonko yeewi sa bark Ousmane Sonko nag yëkkati na ay kàddu wax ci verdigu projet bi lee nee na lii mënu koo teree def li nga xamante ni moom la bëgg a def mënu koo freiné yoota tribune yëg la kaay ngay laajte danaan àkel ah Khalifa Sall se fier mu yéen ndax meerum Ndakaaru Njaay Jal Jóob ba woon yëg la kaay gi ne fi ñu toll ni tembe nopp na ngir dialogue ak njiitu réew président Macky Sall ci candidature am ba pare itam dëggal ànd gu mu ànd ak Ousmane Sonko ngir taxaw ni surtout jàppale ko les ko yëg la kaay ne ma Khalifa Sall ne ngay dëggal boppam ma nga naa yeewu ni aujourd'hui nii demee du tey du suba du masa tas de ñun ab famille lañu te ab groupe dami lañu ab groupe lañ boo xamante ne ay xarit lañu ñun ñëpp te kenn mënuñoo séparer yëgle kaay gi am na sax manifestation bu ñu nar ñoom waa yeewi askan askanu sunu gaal sunu gaal gi le yi gaynde yi war a laale waa Afrique du Sud gaynde yi daal ca dëgg-dëgg demi lañ visé mondial ba àdduna wërngal këpp di ko waajal moom feetu tabaski yëgle kaay gi li ñu Daaru Njaay Jal Joob dara nekk fa lu dul deux cent soixante mille moutons <laughs> mais de moom des koo yittewoo sëy laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Dambel jàggeen jëf jërë ngeen jëf jàggeen jëf mbokk xarit yeeg dëkkandoo yi fu ngeen mën a ne ci biir réew biti réew ak fu man di doon fekk nañ leen fa ni leen jàbb loxo siyaar leen jox leen seen wàcc waaye tons dëcce maa a maa ngi kaa nuyu di ko biggee ca Touba di biggee képp koo xamante ni yaa ngi nuy teewlu ca pirum ndëri waaye dem ca nga xamante ni moo ne gàddu ngay néegi caar ngu lekk Njaga Saar bul fa kër Mamour également Ndoukoumane tuubaatul ñu ñëw ba xombal euh, wàcc fa nga xamante ni moo di également euh, Thiénaba daal di liggéey tem bu baax a baax waa croisement ñëw ba Touba Gueye noonu rek la ñuy accès ci fi nga xamante ni moo di Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar mbokk yi horaire bi dañ koy jëli tem waaxoo ba fa nga xam ni moo di ca Njaareem jàdd Gosaas dem Fatick Kaolack Ndangaan fekk fa sunu greffier ba maître Kouyaté le président conseil départemental bu Gosaas ñu ngi ko nuyu bu baax a baax ko waa ci waayam mbokk yi ci naka noonu rek la ñuy yéega roppalaan gi dem ca états fekk fa sama gaay yu baax a ñoom xaadim sama yi ñoom ñëpp ma siyaar leen jox leen seen wàcc waaye nuyu waa Brésil waaye itam nuyu waa Espagne nuyu waa fa nga xamante ni moo di Allemagne waaw ñoom ñëpp bëgg naa leen jox leen seen wàcc waaye kontaane leen sama gars yi bopp yi ayca ñu nii bu baax a baax a baax sama mbokk yi nga xamante ni ndeysaan takk der yi góor góor lu saa su nekk di daj lu ne ngir réew mi ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye mbokk yi ñu ñaan jàmm nag ca ngor ñaan fa jàmm ak salaam ndax waxuma la bakkan fu mu rote waaye blessé fu mu amee rek xamal ni loolu metti na kon yàlla na fa yàlla def tawféex ak taysiir mbokk yi ñu wax rekk ci waa ji waa ji nga xam ni ñetti junniy dërëm moo tax nu tëj ko xoolal ma lii xoolal ma lii moo doom ba nga koy jël xalaat xalaatoo woon lii ah! ah baax na mooy li may wax rek faw nu xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax jikko yi sàmmaat sunuy jikko delluwaat ca mag ña yaruwaat xamaat àdduna da cee baax de da cee baax de ñetti junne nga jël ko dugg ci kaso nii ah ah yéeme na daal yéeme na yéeme mais coow li ca ngor yàlla na fa jeex waaye yàlla na fa jeex ah ma nuyu sama gars yi kii de moom moom wax dëgg ni mu commentaire daa mel day toppandoo revue de presse bi nee na fii laay tàmbalee teel sa kaasu café nga naan. ma wax la lii yéene kaay xëye si askanu sunu gaal macha allah Tafa Diop bëgg naa la borom Mauritanie yow sama xarit nga Moustapha yow sama waay nga maa ngi lay bëggee di bëggee waa Mauritanie gi yëpp nag sa gars yi teewlu revue de presse bi foofu yëpp bëgg naa leen jibi ba maa ngi lay bëggee yow sama nit nga Pullo eh l'international maa ngi laa nuyu El yi tem maa ngi koy bëggee Daouda Diop yow sama nit nga bëgg naa la bu baax a baax ay satu Dramé. bëgg naa bàcc bëgg naa laat Diop ak laat Guèye mi yaakaar maa ngi bu baax a baax Keba Dia Papa Diop sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Mor Seck sama nit la ah, di bëggee bu baax a baax Pablo di bëggee Aboubacar Daabo ken la ci man mbay Diop maa ngi koy nuyu di bëggee Amadou Dieng itam ah, Mbaye borom Babacar depuis la France Mbaye Babacar France maa ngi lay bëggee de yow itam sama waay nga macha allah Cheikh Omar Diop maa ngi koy bëggee bu baax a baax moom it kenn la ci man. Soxor fay waa kooku sama waay la Mamadou Diouf itam maa ngi kaa di bigee Cheikh Wade Omar Diallo maa ngi koy nuyu di nuyu képp ku ñuy teewlu seen mbokk seen xarit Fall Damel la nee naa leen sët la ci buur seen bàyyi Serigne Saliou Mbacké mbokk yee xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci askanu sunu gaal defal nu tawfeex ak taysiir defal nu uh, uh, uh, li nga xamante ne rek moo di sutura su saawaan baawaan defal nu li nga xamante ne moom moo di ak ngëm ak nangu dogal ba faw itam ci barke Xaadimu Mustafaa barke ay ca mbokk yi kon ñu jox leen dig daje ba suba ak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf.